ayca mi ngi noonu neewoon naa leen euh, comme aatu def na lu am solo loolu dañuy dem si waa kër maam Baye Niass damay bàyyi rek rapidement mu jox leen seen déwén na ñu doog a ñëw ak moom si waxtaan bi Cheikh Boiro bismillah mm-hmm. ma bëgg nga jox téléspectateurs yi seen ndéwénal gu doy euh, ñu doog a dikk si waxtaan wi ndax boiro yi bëgg na ñoo xam fu mu bismillah wa alaykum min kulli xaalin salaamun fa xalqin illaahi tola layaali wa alaykum يليق من كل خلق صلاة دف خلق الله طول ليالي وعليكم من كل خلق سلام دف خلق الله طول ليالي حسن الأصول وعلى عجالها وعليكم من كل قلب سلام جفاح الإله طول ليالي لم يزل نوره بآن الإله في انتقال في الكون بعد انتقالها وعليكم من di fa halqin ilaahi toolalayaa summa haqa lakiya wa tajalla nuruhu fi abdi ilaahi alaaliya wa alaykum min kulli xaalin salaamu di fa halqin ilaahi toolalayaa من عدل البهاء والجمال وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق إله طول ليالي قال أما هرام فالموت أولى المقال آل الكمال أطاف الله وصله بنت واب الله وهنيئا لا بذاك الوصال وعليكم من كل خلق ظلام دفاع خلق الله دول ليالي كان أترها بصائر وياه بلا برسول يعلو لآل المآدي وعليكم من كل خلق الظلام في فهل إن إله طول ليالي في نفي فنها طوى قدر صار نتوى عسله المفضل غاليا وعليكم من كل خلق ظلم ضيف خلق إله دول ليالي وتطادوا اليتيمة حسنا ومع اليون في رهاء البال قام حمل الحادي سهورها كوها تسعة لم تخصص له بسقالها وعليكم من كل الظلام ضيف خلق إلى إطول الليالي جاءها طلق وهي في دار فردا فأطره ربقتان بتواليا وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق إله طول ليالي وأطرها قوابل أم إيسى ثم آسيتنا أتان للناليا وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق الشدائد الليالي جاءها طلق وهي في دار فردا وأتره رباتة بتوالي صلى الله عليه وسلم وأترها قوابل أم إيسى ثم آسيتنا أتت للنار وأطرها أملاك صور مقد الله نور كل النجوم للمفداد وطأر في دار ابن يوسف أو برمي وساب بقول جل رجالي صلى عليك وسلم نور الشمس تبصغا إن سمسا Moustapha Sa soqat zona madalaari marhaban bi rabii fii ataana Moustapha alxalqi wa waqaan murisaani salla alayka wa sallama jaa zal murtada bi tarfil kahili bi inaayaati rabbina mutaali wa huwa maqtu usurati wa huwa maatu دهين الأكرم بذين رجالي هاملته أملاكنا وجنان وبهار وبدر في الهادي فتبدى أنواره وأناره ufqa busra lahum faya lal jamali watada'i wa nusuma tawala فيه بصرى فالكفر بعد انسوالي راج ما رج ما سمى كل رجيم حال مرقاه يا له من كمالي صلى عليك وسلم نار فرس أناره في أمودي وانقطاع عيون أنت مالي فرس فرسك أصنامهم في جفن والجدال يروب أيد الجدال مولد الخير الأقول به الإرهاب حسن المصطفى جزيل النوالي مرحبا كل مرحب بالمقفى مرحبا بالجود الشيخ مقطالي وهنيئا أيضا لبنت لواب أنجبت بالختان صافي زلالي sabaqan fi faxaari kull fataati anjabat bi durril yatiimil ghaali si Baye am na solo euh, ma si nuyu seen soppe ba euh, Cheikh Mamadou instant ñu koy nuyu bu baax a baax waaye foofu mu ñu faa dugg euh, te duñu nuyu suñu kilifa goo xam ni moo tax ñu xam kan mooy Baye Niass muy sang abu Aboubacar Ndiaye di sàkk barxaamu Njaay ñëpp xam nañ maak moom nag muy sama papa di sama kilifa di sama xarit di sama lépp ma koy wax déwéniti mu baal ma àkk bu baax a baax a baax si julli bi moo njabootam gépp su ma limee damay juum waaye su ma limee tet ba rek Cheikh Moussa euh, lim naa ñëpp soxna Daaya Euh, suñu yaay soxna Awa Jongo ñu ngi koy siyaare bu baax euh, maman Yacine soxna Nabou ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax njabootu sang Barxaamu Njaay gépp ñu ngi leen di siyaare te di leen wax déwénati euh, di nuyu président Masseer suñu xarit ñu ngi koy siyaare bu baax Passeman Kabe ñu ngi koy siyaare bu baax waaye di nuyu kenn koo xam ni kenn la si ñun muy Cheikh Fall nga xam ni moom moo fi indi kii di taalibe Mamour Insa Cheikh Mamour Insa Diop moom it ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér Cheikh Boiro nan nga def ak zikar Euh, ñun de ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa tudd yàlla bi ñun yàlla moo ñu jékki-jékki rek xiir ñi ko ci xiir ñi ci boppam mm-hmm. macha allah ndax euh, dañoo juddoo ci kër gi nga xamante ne kër diine la mm-hmm. kër gi nga xamante ne foofu dañ fay tudd yàlla mm-hmm. à tout moment dañuy tudd yàlla matin matin di soir ku juddoo ci kër googu noonu màggee ko ci kër googu noonu mhm. euh, boo tuddee yàlla kon loolu du lu jomb laa xarwa mhm. ñu jëlee ko nag ci suñu mawla suñu baay mhm. muy mawlaana baay bu waaru macha allahu ci ci buntam di bu nekkee ay ndaw moo ñu tàggat ci tudd yàlla ndax moom dafa bëgg yàlla mooy suñu baay moo ñu jàngal alquran moo ñu tarbiya jox ñu tariqa te moom aussi moo ñu tàggat ci tudd yàlla gii nii. Mhm. macha allah. Mhm. kan mooy Baye Boaro. Baye waaro mooy ki nga xamante ne euh, benn jaama bi yàlla la. Mhm. bu nekk fii ci Asegna. nekk fii ci Asegna jóge nag ca Guinée Bissau ñëw fii ci Asegna macha allah. di profito di nuyu ki nga xamante ne mm-hmm. mooy xalifa Maulana Cheikh al Islam alhaj mm-hmm. Ibrahima Niass fale ca Guinée Bissau mm-hmm. kooku mooy muxaddamam muy Cheikh Mouhayidine alhaj Mouhamad al Basir Diaw mooy xalif général de Tidiane fale ca Guinée Bissau ñoo ngi koy nuyu kooku mooy Maulana Cheikh Mouhayidine mooy muxaddamu Baye bu waaru macha allah kooku mooy Baye bu waaru mooy suñu wayjur macha allah Cheikh Baro def na album wala def na clip Euh, fu yëfi toll projet yi. incha allahu Cheikh Boiro euh, def na album mais defagul clip. Mhm. def na album mais defagul clip. Mhm. def na ay son mais ñoo ngi ñoo ngi ci kawam macha allah ñoo ngi ci ay projet yu bëri. Mhm. waaw di tàllal loxo mboolem ki nga xamante ne euh, xam-xamam wa màcc na ci wàllu yooyu noonu. mais commencé woon nañ ay projet yu bëri. projet yi nag mu am nu mu demee. Mhm. macha allah ba tey nii nag def nañ ay album. Mhm. mais clip la ñu jotagul def. Mhm. incha allah. ñu mel ni dañoo suñu déggee say wax dañoo jàpp ni euh, xëy na Cheikh Boiro dafa amul ñoo xam ne dañoo nekkagul si ginnaawam lan la ñuy xaar si yow ndax ku la dégg wax dëgg yàlla euh, talent nga am nga talent bu baax a baax a baax ndax nee leen tey spécial ndéwénal bi ñu leen jox ay révélation doog lañ leen fi indil ay yu ndaw ñoo xam ni euh, wax dëgg yàlla way dañ koo mën gis ngeen aatu sànq li mu fi def Cheikh Boiro dégg ngeen li mu fi sikkal si bàñes kon lan la ñuy xaar si jàppale Cheikh Boiro macha sang Cheikh Fall mhm. macha allah moom moo ci dox ay jéego mu mhm. ci dox dox na ci jéego yu bëri macha allah mhm. xëy na euh, daa am daa jotagul rek mais incha allah essant yi ñoo ngi ci yoon bi ndax essant yi nii sumb nañ ci ay projets yu bëri ndax ñun moom euh, dañuy zikar dañuy zikar façon zikar yu bëri macha allah yàlla leen nañu ko dañuy zikar zikar hausa def nañ sa ay son yoo xamante ne day dem international macha allah loolu yëpp ñoo ngi ci ci kawam incha allah. Mm-hmm. nga nga bëggal soppe yi si si ndéwénal gi ndax nee naa leen man duma bëgg di te wax ji eh, dama leen a jox ndéwénal gu doy ndax set tv nee naa leen nii la baaxoo ak ñun eh, di ko di ko defee ma koy may nag képp koo xam ni waa kër baa Niass la rek ñu ngi leen di may eh, lii nga xam ni moom la Cheikh Baaro di sikar bismillah la la ilaha illallah illallah hay la la بحب المصطفى الختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرأى وما اقتدار أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سليت بنيراني استياقي مدى علبت به والناس في سنة الكرام تمطعت منه دار إذ كنتم ردا وزوهمت في هذا زمان وإنني لفي غيرة الملمان يروم محمد ولكنني جليت قبل سباقهما وقد نلت تبريدا قروني لآه مدى والإملا وإز الأبد إز مليكه فطوء يمينا كوني أبدا مساودا ألا يا رسول الله وارفع سكايتي إليك وخالما ترى أبد سودا فهاجي وهاج المسلمين أهلتهم عليك وطبت الله شهرا مساء أرمدا ثاني طلق الوجه غير مكدر لا أروه وأهدو داء إمن لن أكمدا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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Baay Ñas la ilaha illallah la ilaha illallah Baay Ñas Baay Barhama Hazi la ilaha illallah Baay Ñas Baay Barhama Asami la ilaha illallah Baay Ñas حسبي لا إله لا إله إلا الله باي وقد كفاني لا باي لا لا إله إلا الله باي نس كي جوبل نوني باي لا لا إله إلا الله باي نس كان موي خملة يلا باي لا لا إله إلا الله باي نس كان موي برم فايدو لا لا لا إله إلا الله باي نس لا إله إلا الله jamono bàyyi laa laa ilaa kan moo indi faydu bàyyi laa laa ilaa kuy borom faydu kuy xamle yàlla kan mooy borom faydu kuy borom faydu bàyyi laa laa ilaa laa ilaaha illallah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 Allah لا إله إلا لا إله إلا برهام يا الجبر الكسر أنوف الخلق مألوف سبي الله برهام أنوف الخلق مألوف سبي الله برهام فإذا أنت المذل من كل مأوف الغوث برام كولك لا إله إلا برهام لا يا ورلي لأنت الغصب من كل مأوف الغوث برام كولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكور خالص آمال ولا أقوال برام سكور خالص آمال ولا أقوال برام يليل جنبلا bi baraama Kaolack la ilaha illa allah la ilaha illa allah wasuul min wajaayaka qiyaasil xalqi baraama ilaahun xalqi aataaka zimaamul kawni baraama laqad uutiita kul ma yakun fadlullahi baraama إلا الله لا إله إلا رميت القدر للدين لآل القدر برام لا إله إلا الله لا إله إلا لا رميت القدر للدين لآل القدر برام اللبي لعل اللب برام كولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مو قلبي في اللاهوت سوى اللاهوت برهام يهيم في جبروتي كذا الملكوت برام وفي موريتانيا ليبيا كذا مصر وتونسيا نيجيري كذا نيجيريا شهاب الشهيد برهام Euh, ñu waajal sëñ góor al amin nga xam ni mooy fiy ñëw euh, fas yéene bégal si Seydi Hadji Malick oh, moom dama koy may sama rakk bopp ji may mun a baax sama seex bi sama xarit sama lépp mook sa euh, seexam Sofia ba ñu leen koy may bu baax a baax ak borom këram Xaarim Fay ñu leen may kooku nga xam ne mooy sëñ góor al amin di waaj a yëg léegi incha allah rabu Cheikh Baaru li ngay def neex na macha allah tey suñ la bëggoon a jot si ban numéro lañ lay jote ma bëgg 46 74. répété ko. 77 476. 46 74. numéro ba ngi noonu ku ko bëgg a jot euh, na daaw euh, nga woo ko wax dëgg yàlla mu yëngalal man def fi ma toog wax dëgg yàlla maa ngi siy sentir bàññees bu baax a baax ndax xam nga ni ñoom sama sama kër googu dama faa bëgg ndax dañ maa bëgg. wax dëgg yàlla ñoom nañ maa bëgg lool njabootu Baay Ñas ki xam naa si dara ndax su ma demee ànd ak ñoom si kaw lañ may teg ma leen di waat bu baax a baax a baax euh, Cheikh la ngay tàggatoo waaw euh, ginnaaw bu ñu nuyuwaatee mbooleem ki nga xamante ne yaa ngi seetaan di wax ni rek euh, am nañ mbégte ak contentement tey ci toog fii nii tey ci 7TV. macha mhm. allah yow tamit di la gërëm di répété waat encore di sant Cheikh Fall. Mhm. nga xamante ne moo waral sama toogaay fii nii tey. Mhm. waaw di nuyu ak di gërëm. Eh, képp ki nga xamante ne yaa ngi daayira masrabul fayda mm-hmm. di jiital ci nuyo bi suñu sang suñu bàyyi Mawlaana bàyyi bu waaro mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam wëral ay cëram mm-hmm. di ñaanal suñu xalif cheikh Mouhayidine alhaji Mouhamed al Bachir jaawa fale ca Guinée Bissau yàlla yàlla guddal fanam wéral ay cëram di ñaanal mboolem muxaddam baay ak mboolem ñi nga xam ne soppe yi nga xamante ne ñoo ngi toog seen taal seen télé dañu suivre. Mm-hmm. di nuyu sama euh, soppe sama mag Cheikh Souleymane. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla ki nga xamante ni moom laa àndal ci plateau bi. di profito tamit di sant ki nga xamante ne moom moo ma abiyee muy. Mm-hmm. Cheikh Mouhamed Guindo. ci bëtu faydul faydu bi. incha allahu képp ki nga xamante ne bëgg nga ay bone yu rafet. mun nga ñëw ci moom Cheikh Mouhamed gindoo faydul faydu bi. Mm-hmm. macha allah yow tamit di lay nuyu Seydi Moustapha jërëjëf uh, jërëjëf uh, Cheikh Boiro li nga tijjee am na solo waaye da koy tëj ak zikar bu gàtt uh, ma leen wax rek bu kenn buuse alaaji góor a mooy ñëw yéeg béggal leen Seydi Hadji Malick taala zikrullah ñëw béggal leen Cheikh Ahmadou Bamba waaye Ousmane Laay ñëw béggal leen si laaya ni incha allah rabbi Sadiq a ñu ngi may xamal ni ñëw na moom mooy dem si waa kër Cheikh Bou Kounta Ndiassane fi ba koy tëjee nag spécial lay doon moom mi ngi si yoon bi di ñëw muy Mahaaji Mansour Gaye di rak si tafsir Abdourahmane Gaye xam naa ni tey daal nee naa leen 7TV spécial ndéw na lañ leen di jox incha allah rabbi euh, su quatrième jour tabaski incha allah rabbi dañuy dem peex euh, fekk fa suñu waaje suñu xarit suñu lépp suñu frère muy Mamadou Xuusa euh, fa seeni fee tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fa gis nag jànkar yu mag a mag a mag incha nga tëjal ñu zikar bu tuuti bu gàtt te neex nga bégal ko soppay bàyyi si Allah Allah Allah Allah الله الله ففروا إلى الله الله الله دول الجم ci Allah Allah baay mooy kii doonu Allah Allah Seexu Tijaani baay tafarraqoo lii mooy ndamu faydu allah moo tax faydu raw na allah nañu sargal wallahi góor gi moo di mamba bayu barahamu wallahi Seex Tijaani bayla baraham Allah Allah Seexu Tijaani bayra سورة إبراهيم تبقى تذكرا إذا آب للمولى علي وتذكرا متى دفنوني فيك تراب تهدسوا لقد كان ينوي الخير لو كان مؤسرا أجير موهبا متفادلا بقبري ويتلا دم الكل خيرا حياتي رموزي كلها وإزارتي توزر ما ذلك القبر بشرا عليك صلاة الله يا سعد إنه عتاك هفاف يرجئون ثقالك عليك سلام الله يا سعد إنه عتاك هفاف يرجئون ثقالك حق قدر Cheikh Boiro ñu dikk ak yéen léegi si sëñ Gora Niang mu bégal leen Seydi Hadji Malick ay sëñ Gora bismillah